tey nag na jëmm ji ñuy tàggoot tey nag kenn mënta wax ne kenn mënta wax ne vingtième siècle bii ñu génn vingtième siècle bii ñu génn ak vingt et unième bii ñu génn ak vingt et unième ñu génn budul baayam bi ko yar budul baayam bi ko yar kenn doxut ci ko suuf ko yem ni moom kenn doxut ci kaw suuf ku yem ni moom ci lu nekk nag ci lu nekk nag ci ci gëm ci gëm gëm yàlla gëm yàlla ci nangu ci nangu ci xam lu baax ci xam lu baax xam noo koy utee xamit noo koy utee xam foo koy utee xam foo koy utee bu di kër këree di uti àddina bu nit di kër kër yi di uti àddina di uti lum teddee ci àddina di uti lum teddee ci àddina moom dafa xam xam buntu yiñ koy amee xale yu ndaw yu tuuti yi xale yi ñoom la dajale boo ko fekkee xale yi boo ko fekkee xale yi kenn rek ngay fekk kenn rek la ci ñoom kenn rek la ci ñoom waaye am na lu mu bëgg a def ci ñoom waaye am na lu mu bëgg a def ci ñoom addina bi mën naa soppeeku. addina bi mën naa soppeeku nag. te ci yéen ñi jaaree. ñii lay jaaree. kon bala ngeen ci àgg war ngeen koo mat. kon bala ngeen cee àgg war ngeen koo mat. war ngeen koo mat ci seen gëm yàlla. war ngeen koo mat ci seen gëm yàlla. ngeen koo mat ci ut ci am ci alxuraan. war ngeen koo mat ci ut ci am ci alxuraan. te emalewu ko kum jur ak kum jurut. te emalewu ko kumu jur kumu jurut. ñoom ñëpp. ñoom ñëpp. ñoo em ci moom. ñoo am ci moom. am na lu muy war a def ci doomu aadama. am na lu mu war a def ci doomu aadama. am na lu muy war a def ci doomu aadama. te def na ko te dara manqué wu ci. te def na te dara wu ci. kon. kon. du alxuraan rek la doon jàngale. du alxuraan rek la doon jàngale. mu ngi jàngale alxuraan. mu ngi jàngale alxuraan. mu ngi jàngale jikko. mu ngi jàngale hit jikko. mu ngi jàngale nag ngay jëflantee ak nit ñi ak nooy waxee ak ñoom. mu ngi jàngale hit nooy jeflante ak nit ñi. ak nooy waxee ak nit ñi. te xam-xam boobu muy jàngale. te xam-xam boobu muy jàngale. tëju ko ci benn langue. tegu ko ci benn tëju ko tëju ko. tëju ko ci benn langue.